ak ca seen biir diiwaan ya ci jox ñàkk a jox yonent bi orma boo ko mënta bañ a diglu it bul ko toxal baaxul du moom rek ko de moom nga dégg waaye jiitu woon na ay boroomi conférence wax ko wax na yonent bi sallallahu alayhi wa ay waajuram duñu ñu jullit dañoo dem safara ndax yonent bee ko wax waaw mbokk mi hadis boobu wax loolu ak ni nga yabe hadis sàngam wérul lu tee néewoo hadis boobu wérul te fi ñu daan jaareele hadis bu wéree di yépp am na fa ba ca jiitu mooy at taarudi ma alquran weddenteeg alquran alquran yàlla wax ni duma bugal wenn xeet mukk ci àddina te yaba yonantu ba noppi ndax yàlla day bañ ku ko yey kon moo tax diggante yonentu ak moroom ma am fa diggante bu ñu tuddee fatra ka dund duñ ko topp ndax kenn waaru ko ndax ñooñu bokkuñu foofu bu fekkee ne nii ñooñoo ngi wan ci diine ju jëkk je ba foofu kon diggante yonent bi ak ko jiitu amul fatra ndax ñooñoo gën a sës amul fatra kon te fatra mënul ñàkk diggante ñaari yonent ndax looloo waral ñuy salaat di yónni beneen yonant bu fekkoon ni diine jooja ma ngay continuer ba léegi kon amul benn njariñ ci ñuy yónni beneen yonant bu ñax wax Muhammad kon Muhammad daa war a ñëw rekk nekk ndongal yonant booba di ko leeralal waaye ba mu gisee ni lépp raaf na te ñooña fekke raaf gi te kii ab wooteem fekke wuñ ko kon dañu leen di boole ci ahlu fitro te boroom xam-xam yu maandu yo foofu lañ leen boole waaye ña nga xam ni nag fu ñu toll ñoo ngay jéem a weddi lépp lu ñu askene yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci mbaax rawatina bu ko ulama wu suufiya waxee suufiya lu ñu wax pour ñoom wérul pour ñoom wérul dem na ba ma dégg ci ñu ni sax mag ñi xamuñu woon hadis waaye yow hadis junni at ba mu wàcceeg léegi muy ñëw ba léegi nga xam ko fu ñu ko garde ci dënni góor yàlla yi lañ ko garde woon góor yàlla yoo xam ne ni ñu dencee woon hadis genn wàll ga mënoo ko téeméeri hadis yu mat sax mokkaloo ko te ñi ngay wax ni xamuñu ko dañ daan mokkal nangami junni hadis ilmi ma'i aysumaa yammamtu yatba'uni sadri wi'aa'un lahu laa jawfu sunduuqi in kuntu fi lbeyti kaana alilmu fiihi ma'i aw kuntu fi suuqi kaana alilmu fi suuqi kan mooy wax loolu nee na aajo woowuma bibliothèque sama dënn mooy sama bibliothèque bu ma nekkee marché bibliothèque nga marché bu ma nekkee ci kër gi bibliothèque nga ci kër na téere yi lakk kooku imaamul Xasaali yoo ko waxan ku ko wax tey ku ko mën a wax tey kooku nga ni xamuñu woon xadis ah xamuñu woon xadis ala xasabi maqtaratum min al mustalahat bu fekkee ni nii mustalahat yi nga bind kéré ko te tuddee woo ko bidaa te yonent bi xamu ko woon waaye nag tuddee woo ko bidaa ndax neex na la ci loolu nga wut nattukaay boo natt ba ni waa ji xamul woon xadis te waa jee garde woon xadis ci dënnam ba mu ñëw tey toog sa loxo xadis nekkul woon alal fada di fa dencu di dencu ba léegi mu naaw ñëw abadan defu ko mbokki jullit waxam jooju mu wax te mu rëy lool mu rëy lool xanaa xamuloo ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu mu laal moo gën lumu laalul yonent bii nga bu toogoon ci garab garab ga nekk sangu garab ya bu demee ci dëkk dëkk ba nekk sangu dëkk ya bu naanee ci teen teen ba nekk sangu teen ya lan la ñuy wuti madinatul munawwara amul benn ponk bu aj bu nekk madina ci mboolem li ñuy aji makka amul benn jaamu yàlla aj bu nekk madina te yéen ñëpp ngay dem madina lu jox boobu daraja madina wujudul mustafa sallallahu alayhi wa sallam jëmm jëfa tëdd moo ko jox daraja jooju waaw jëmm ju dem bañu ñu ko ni génn na àddina muy jox suuf daraja jooju waaw biir bi mu jóge woon naka la moom yaa réere rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam maa dalik yonent bi moo ni ma tànn min aslaabin taa'ira ci askan yu leer la ma tànn min abdillahi ila adnaan nee na ñoom ñëpp dañoo tedd ñoom ñëpp mësuñoo def lu bon karimun min karimin min karimin fu ñu jaar daa tedd yow nag nga ni kooku sama waajur sax a ko gën naam boo demee wax nga dëgg waaye yee waajur ñoo nu andil jëmm ju ñuy wax rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bee waajur moo nu andil kuy saaga rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ayuhuma afdal mbokki jurit yi nanu wëlbati sunuy micro am na ñoo xam ne deesu leen diglu ndax bégguñu ci yonent bi sallallahu alayhi wa ndax dañoo fekk setu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di dundal na ca makkatal mukarama ñu tër leen rendi kooku bëggul ku tuddati kooku kooku nag day wut nag ay àndandoo àndandoo ya nag ñëw na ba ci biir réew mi du ñu ormaal benn yoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kuy tagg yonent bi ñu ne li nga wax da ëpp yonent bi kenn mënu ko wax lu ëpp lu weesu yàlla nga lu la neex tàggee ko rasulullahi ba mu des yàlla nga da ma daathu nasara fi nabiyihimu waxkum bi ma sita mat an fiihi wax takimi dafa wax la nasraan ya wax ni diw mooy doomi diw ba ko bul ko wax yow waaye leneen loo wax rek jàpp na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mawlaana Seexul Xadiim wallahi bu fekkee won lii tey bakkan dina dem laxira xaw ma nag ban lay doon ki wax ni laqad maana laqad maana man sanna al muqaffa muhammadan yuhaaki walidan xad mada aw sa yuladu mu ni fen nga te sëriñ bi daawul saaga kan moo fen mu ni ki ni yonent bi am na ci ñi ko ji jiitu woon ku niroog moom wala ñiy bëgg a ñëw ku niroog moom nee na ku wax lii rek fen nga kooku lu mu laal yemu tëg lu mu laalul omar ibnul xataab radiallahu taala anhu kere bi muy tawaaf kaaba gi ba si ci ajarul aswad di ko foon mu déw doj mu xool ko ni ko wallahi bu ma gisul woon rasulullahi di la foon duma la foon ma anta illa hajar aw doj rekk nga ndekete yonent bi kon jox na daraja aw doj yonent bi jox na ab dëkk aw doj yonent bi lu mu def barke la fu mu jóge barke la kooku di su ko foye bokk yi rawatina nag nu nekk ci jamono boo xam ni ñu ngi wax mbas mu rëy ci weer wii yàlla ni bu ci kenn tooñ kenn yow nga tooñ ci gën a rëy ci jamono bii yàlla ni bul dóor kenn nga dóoru yet ci gën a rëy ba noppi nag nii nan tàllal sunuy loxo ñaan mu génne mbas mi nu muy génnee mbas mi te nu merloo ko yéen ñii ku ci ñëw sa kër di ñaanub dépense fekk ka a gën a bëgg ca kër ga mu dóor ko mbéj saaga la du yóbbaale dara subhaanahu wa taala nag tey ñu def ko lu ko naqari ba noppi naan nanu tàllal suñuy loxo fu nu koy tàllal ak fu nu koy tàllal ki nu merloo déedéet nanu fàttaliku rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam weer wii ñu ngi tudde weeru rajab ñu naan wu màgg la mais lu ko màggal bihi usriya al mustafa sallallahu alayhi wa sallam min al masjid al haram ila masjid al aqsa da cee am liggéey bu ci yonent bi liggéey bu mu deful ci weneen weer ci weer wii la ko yàlla wooye mu yéeg asamaan yi juróom-ñaar jaar baytil maqdis ni gaa yi dem naa baytil maqdis te baytil maqdis ay weer la daan def ci diggante bi gaa yi sikki sàkka daf koo wàññi waaye fa mu jëm ah, romb na baytul maqdis ba ñu wooyee aboubacrin sadiq ni ko li sa waaje wax tey mënoo koo gëm ndax nee na daal baytul maqdis reer ba rek rek ni demoon naa baytul maqdis sallallahu alayhi wa sallam ñu laaj ko nu mu mel mu wax leen mbedd ya wax leen koñ ya wax leen kër ya lu ko waral daa am ku farang moom ki farang moom mooy sayiduna jibril mi ko dajjatil dëkk ba teg ko ci kanamam waaye kooku mbokk mi ndax daraam dina yem ak kenn waxuma la yaaye yonent bi waxuma la bàyyi yonent bi mais mbubbum yonent bi sallallahu alayhi wa sallam buñ la ni woon ma nga dëkk sàngam suba ñëpp dem ci dëkk ba di xooli mbu mooma te mbu yaram la ëmb waaw kay moom lu mu yoroon ci nu indi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ki nu may rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam te day wuutee imaamul Buseyri moom da dañuy woon damay ndokkeel Amina moom mi nu may kii ñuy wax rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yemut a kenn yemut a kenn bokki jullit yi waaw yéege googu yàlla yéege sayyidul awwalina wal axirina ba ca moom lu ngeen ci mën a déggee dafa am lu mu koy doyee du dara lu dul bëgg koo wax dara xel ma rafet lool xel ma dara manqué ca maa kasabal fu aadu te itam gis ba dara manqué ca jàkkaarloog moom su ma danaa fa te dellaa fa kaana xaba xaw sëy ni aw adna jige ko lool jige koo xam ne nii li ngay wax dee su ko nattable te nopp ya neex na bët ya gis na mu toog jàkkaarloo kookule mu di ko déey am na lu mu ko doon déey loolu mooy lan mooy li ñu fi indi tey muy julli yu juróom xanaa bokk yi xamee ngeen ci ni kon julli rëy na de lu tax yàlla yéegéeb yonentu muy xotti déelee asamaan yi ba si mu ni ko li ma lay doyee du dara du dul neel jaam yi nañuy julli nañu julli juróom fukki julli bis bu nekk yonent bi wéy bay wàccaat ba agsi ci yonent yàlla muusa sëriñ Mouhamadul Fadil Mbacke radiallahu taala anhu bu ko daan nettali bu tuddee muusa danaan dafa nekkan ab xeej ci yàlla mooy ku sañ bi mu ko nettileew yoonam mu ni ko loolu ëpp na juróom fukki julli del mu wàññil la ko sallallahu alayhi wa sallam delli mu wàññi juróom mu dellu si mu ni ko dellul di ko def ba muy juróom-ñeenti yoon mu ni ko dellul mu ni nag rus na bàyyi ci juróom yi yàlla ni ko juróom yooyu nag boo ko defee ma jox la yoolu juróom fukk yépp ba bisub tey saa bu ngeen jullee tisbaar mel na ni julli ngeen juróom fukki julli kooku mooy wone màggaayu julli